C'est bon. Non, non, non. Non, non, non. C'est bon. C'est bon. Président, vous avez la parole. Salam alaikum waa Sénégal. Salam alaikum la presse. Salam alaikum ñëpp ñi nga xam ne ñu ñuy suivre à l'instant. Ngeen may ma rek. ma encore lay waxe euh, njabootu ce ce jeune qui a encore été sauvagement assassiné par les forces de défense et de sécurité à Grand yon lolu metti na metti na Maintenant, les sénégalais mais maintenant surtout ci ñi nga xamné dañu gëm né ëllëgu Sénégal ci jeunesse bi au moment où l'on tue cette jeunesse la racaille politique sénégalaise ces gens yi andak ñëdd Abdou Diouf ñu ngi tay Né nañu dañuy waxtan, dañuy dialoguer dialoguer pour l'intérêt de qui Dialoguer pour trouver quelle solution Certainement, c'est un deal politiciens professionnels yi nga Sénégal tollu tay dama rek ci gi kër nga na froidement à Grand-Yoff

yàgg naa dund lii bu ko yàlla dimbali defe naa fii ñu fi nekk ñëpp ku ci yàlla dimbali woon nga dem Amérique dina am leneen nooy taxawee nu dul toog yëkkati ay tifaar di ko jëmale sam réew mais boobu gis naa nit koo xamante ni ba muy toog di wane dooleem boobu Cheikh Sidi Mokhtar mi ngi fi Al Makhtoum mi fi ay kilifa yu mag ñu ngi fi nekk di ñaan bu dëgër di dëgër bopp bu ñu egsee fii ñu egsi kay ñàkk a dégloon de ñun sénégalais yi moo tax ñu egsi parce que problème bi ñu am ñun mooy ñàkk a dégloon de bu fekkee ne ñun ñu ngi de yàlla mën nañoo yóbbu fi ñu bëgg egg parce que yàlla bindul askan bu ñu ëpp yërmande wala askan bu ñu gën a taxaw bu loolu weesoo maa ngi massawu prisonnier sénégalais yo ba ci yeen journaliste parce que Sénégal tay ñepp ay prisonnier la Sénégal yëpp la soit nga nek bir prison soit nga nek sa kër soit ngay bugan ngay dani wala ngay Assane Diouf prisonnier wala ngay journaliste moo fi ñu tollu ni ak contexte bi ñu tollu dafa tollu fo xamanteni ku nek yaay jóg taxawal sa bop pour sa réew bul ne bokkuma ci bul ne man du ma xeexal kenn fii kenn xeexalul kenn Sénégal la ñuy xeexal te bu Sénégal di tàkk ñun ñëpp la ñuy yóbbaale parce que kii xam naa li mu mën man xam naa li mu mën mais damaa wan li ma mën ginnaaw moom mu wan li mu mën ginnaaw pour sénégalais yi te foofu la ñu toll tey. parce que may ñaan bépp sénégalais man soxlawul may wax wax ju bari. parce que waxoon naa lépp xëy bi ma koy wax ni ma ko doon waxee ñu bari neexu leen woon mais waxoon naa lépp ba bari léegi nag fi ñu toll nii dafa toll ci ñu dégloonte yow loolu laay parce que benn combat la am benn combat benn mbër la ñuy jàkkaarloo kii jàkkaarloowul ak Sonko Ousmane Sonko jàkkaarloowul ak kii man Assane Diouf jàkkaarloowu ma ak moom Macky Sall rek la ñuy jàkkaarloo mooy sénégalais

moment bi nga xamee ne ñu ngi waxtané nu ñu tong tongé Sénégal di def ak ñi nga xamné indi Sénégal tay fi mu toll diko def avec cette classe politique qui a traversé tous les régimes tay ñoo dans le palais de la république Je ma gisee léegi photo yi dama am metti j'ai eu un pincement au cœur je me suis dit mais ñun jeunes sénégalais est ce que ñun pas fay ça comment ay pas am 80 ans 78 ans 72 ans 69 ans nous ñooy nous nee nañu dañuy jale bi fur suñu avenir nous ñi 40 ans nous ñi 42 ans yow mi 18 ans yow mi 21 ans ay pas ñoo au palais de la république Macky Sall sponsorisé leen ñu ne dañuy pour avenir au Sénégal et on nous demande d'assister à ce dialogue non on n'est pas des dealers non on refuse c'est pourquoi on a lancé les cartons rouges contre Macky Sall 2024 Macky rek moo warul bokk dégg naa ci seen biir dialogue bi am ñu naan ko troisième mandat dañ koy waxtaane wax xoolal ma waxi fekk yooyu lu ñuy waxtaane kenn warul waxtaane troisième mandat troisième mandat dafa lèr ci constitution bi képp kuy woté pour ñu waxtaane troisième mandat bok nga ci na fekku Sénégal c'est ça la réalité wax boko waxul wax fan wax wax dëgg boo ko waxul wax safaan ba Macky Sall on ne doit pas négocier avec lui cette histoire de troisième mandat parce que Macky Sall moo wax ne dafay changer constitution bi parce que gis na ay nit ñu dee ci Sénégal ñooñu dee ci Sénégal te dara reyu leen lu dul coowal troisième mandat dafa ne woon non loolu jeex na waru fi amati mais c'est dommage moo tax nit ñi bëgguñoo nekk politicien bu fekkee ne wax ji waxi wor la waxi fen la waxi wax joo wax tey nga teggi ko bu suba mag ñu baax ñi ci réew mi ñoom ñoo am fulla ba ne kenn du leen wax waxi politique parce que yëfi caaxaan la on peut pas avoir autant de morts autant de martyrs autant de victimes autant de prisonniers sur l'histoire du troisième mandat tay di Macky Sall ñëw di ñu delloowaat ginnaw ci cette histoire du troisième mandat mo tax ñun ñu défar ay carte carton rouge ku nekk nak ak façon bi ngay xeexee ñun ñu ne dañuy défar ay carton rouge def 2 millions de carton rouge tay responsable yi ak man ñu wacc ci terrain bi ku nekk gox ba nga fété rien que ci Dakar on a vendu et je dis vendu on a vendu, parce que ces cartons rouges sont vendus à un prix symbolique de 100 francs. 100 francs pour l'en Sénégalais, ils n'ont pas 543 627 cartes le en une demi-journée Dakar alors que 2 millions de cartes nous le point avec les gens qui sont dans les autres départements du Sénégal parce que les 46 départements du Sénégal yëpp jot nañu seen lot de carton rouge may remercier les Dakarois pour la réussite de cette opération ma gis jaaykatu guerte jay nit 100 francs guerte ñu ñew taxaw mu mu jox waji ji gerte gi ba paré né ma 100 francs bi am jënd na ko carton bi pour Macky Sall jóge fi ma gis ndox yi handicapé yi ñi ku potam di ñu mu jël ci qui franc ci yalwaan qui parce que bëgg Macky Sall fi alors des dealers au palais de la République et c'est ce que Macky Sall est en train de faire ce simulacre de dialogue wax na ko d'ailleurs ci biir fi Macky Sall wax na ko amul tabu ku neena wax li nga bëgg rek après ñun tamit ñu wax li ñu bëgg Macky Sall lu mu bëgg du troisième mandat waaw yow mi am sañ-sañu fekk ko ca palais boobu wax ko moom yow li nga bëgg moom amul sañ-sañu wax la moom li mu bëgg képp ku d'accord ci troisième mandat tu auras trahi les Sénégalais mm. tu auras trahi la constitution mais nag bu mu leen jaaxal Macky Sall mu njëkk a fooye constitution bu Sénégal Macky Sall mu njëkk jalgati constitution bu Sénégal et comme je laaj ma jox la ay firnde yu bari bi ci étudiants yi des sénégalais du moins yu participer au concours FASTEF cour suprême daal di jël décision de nañu leen jël mon maquisal, moom Macky Sall mu and ak Serigne mbay cham ne mo lànk ndaare defu respecté wul suñu constitution alors que lui il devait être le gardien de la constitution kon tay dit mom Macky Sall lii muy def warul leen bett li mu nek di def ni ci Sénégal warul bet kenn ci yéen mais bima ma tay ci mbedd Ndakaar wi donc on me dira ouais ouais ouais, mais pourquoi un attroupement non ñi ma àndal ils ñëpp ñu ngi taxaw je leur ai dit pas d'attroupement la sécurité ils étaient au nombre de 47 gardes du corps je leur ai dit fexe ba buma kenn jege parce que xam naa leen ay say say lañu ay wéyu lañu ay njuñ njuuj kat lañu ils vont te dire oui da ngay def parade wala da ngay def attroupement motax man sama bop ma don dox yor sumay carte di dugg ci bir sénégalais yi les autres responsables yor seeni carte di dem vers les sénégalais pour leur dire non au troisième mandat de Macky Sall xeex bi ñuy xex du xexu Bougane du xexu kenen c'est pour ça qu'on a besoin d'eux. On ne peut pas faire de nos des Parce que c'est ça la réalité. 1 plus 1 égale 2. Il y a quelqu'un qui peut dire que son enfant est un homme, 1 plus 1 égale 3. Ou 1 plus 1 égale 1. Il faut qu'on soit sérieux. Et Matissal est en train de tirer ce pays dans une médiocrité qui n'est pas la même Chacun d'entre nous a la lourde responsabilité de faire face aux dérives de Macky Sall xoolal li wax rek yow yaa dialoguer avec ses dealers. waa F24 nous ñoom dañuy dialoguer bokk noog yow sa dialogue ñun dañuy def suñu dialogue nga ne non man dinaa dialogue waaye yéen du ngeen dialogue moo lay wan ne Macky Sall xamul démocratie Macky Sall c'est un fasciste Macky Sall une attitude nazi le yor mais xoolal les xew Parcelles assini. dañu nous nañu du ngeen ko fa defee yéen yéen F24 Nous dem siège au grand parti commencé Wa gendarmerie ñëw dugg si biir siège au F24 biir siège au grand parti Mais yéen ñi toog di réunion non génn leen immeuble bi ñu ne leen lu non non non c'est des ordres qu'on a reçus la gendarmerie sénégalaise l'armée sénégalaise la police man ont ma ci xam ñëpp ay nitu honneur Si on buñ la ordre illégal pour exécuter c'est pourquoi j'ai demandé moi de venir dans mon immeuble Je mon sama immeuble ma une conférence de presse ba ma gis gendarme bu dugg ci mon immeuble ne mon immeuble on verra fii ñiy woyu woyulu dañuy woyu woyulu woyuñu il faut qu'on soit sérieux Macky Sall ne peut pas utiliser la police et la gendarmerie ci nous mu ko Macky Sall ne peut pas prendre notre justice di utiliser nous mu ko neexee et c'est ce qui est en train de se passer il faut dire non comment on peut trouver Mali Gakou ci biir immeuble am non non non da ngay génne yow immeuble vous da ngay mais bu mais Macky Sall dugg suñu kër fëgg non non non chambre à coucher sa ci biir ah non non non foofu lañ jëm lañ jëm kenn ku nekk ci na di kenn ku nekk non non non def ah, ngi ci biir ñu barricadé ah oui vous pensez que ça c'est valable que pour Ousmane comment on peut prendre un Sénégalais ramener il y amul décision de justice de ko une ne nit du dem nit du en résidence téléphonique téléphone rek instant yi nekkuñu fi kon bu ngeen génnul wax njuuj njaajkat yi dana tas réew mi et ce qu'ils sont en train de faire actuellement au palais en est une parfaite illustration pour vous dire ban façon ni nit lañu am j'ai entendu Moundiaye Cissé muy wax ci ci parrainage naan Bougane Gueye ay doublon lañu ko génneel waxul dëgg c'est faux c'est archi faux c'est ce que je disais on a une société civile Ce n'est pas une société civile c'est une pseudo-société civile c'est des gens qui roulent pour le pouvoir au gré de leurs intérêts après ce sont ces gens-là qui vont faire le tour des plateaux de télé pour dire oui oui oui jàmm ci mi ci nangam nangam alors que nous gis waa ji yor yet mel les jimboor yi ku mu la

et les gens pensent que ce pays c'est comme ça qu'il faut le gérer il faut qu'on soit plus sérieux que ça je parle oui je parle avec le cœur parce que en regardant ça j'ai eu le cœur meurtri parce qu'on a menti à mon sujet on a menti sur le parrainage on a menti sur Gëm et c'est comme ça qu'ils continueront de faire ay fen rek ay kàcc rek et tout ça sur le dos des sénégalais waxtaan boobu ñuy waxtaan bale da ngeen fa dégg kot Woyofal ku ko fa dégg ci ku fa dégg kilo ceeb ku ko ku dégg ci yéen ku fa dégg njàngum booy yi ku ko dégg ci yéen bërki démb moo njaay maa ngi jógee Kaffrine dem Idda Mouride dem Saly Escale dem katcho dem bulel dem kay nga xool baykat yi jàkkaarloog ñom ñu nan la jiwu gi ñëwagul naan la engrais bu ñuy jox engrais libre lañ ñuy jox 500 grammes bop bu nek 500 grammes engrais bop bu nek jël baykat yi soppi leen ay kat et ñu bañ ñu wax loolu ci réew mi juste une parenthèse euh suñu cortège a nañu ko café. mais cette énergumène de ministre du wax ak moom gone bu la tooñee je koy jéggi man bàyyam lay dugg te bàyyam dans cette histoire c'est Macky Sall ma xamal nag ne dootul amati de ah non non nañu ñu jëflante nañu ko ak mais non ñu loolu moom na ko xam moom ak ñu mu àndal et incha allahu rabbi yàggatul danañu dellu siwaat foofu parce que man Bougane aw ma sens interdit Sénégal moi ma base c'est le Sénégal moi je suis passionné de ce pays je pouvais rester dans ma zone de confort di mos di mosle mais dama jóg bokk ci ñuy xeex parce que cette jeunesse est en train d'être sacrifiée au-delà de Rayla il y a yamatuñu ci ray la en yow jeunesse bi ñi jóg pour défendre na yow jeunesse bi ñi taxaw pour défendre la ah non non non ñooñu c'est des ennemis de la République il faut les éliminer avec les instruments de la République il faut se tenir prêt et dire non ce qui s'est passé à Kaffrine qu'ils se le tiennent pour dit ça ne se reproduira plus parce que si bu caay joté ah non mën nañu caay lool duñu nitu fitna duñu xex mais bu xex joté dañ koy jox akam ba mat seuk laajal maire bi ñewon fi sama buntu bureau di ma jaay wuyu ak fetal man gone bayal la bayal te jigen la yar boy jaay kaba ba yegg ci man bi yow nga dëpp reewande mbubb bu nit di sol dong waye dafa am foy tollu am niveau bo nek ci réew mi jaratu ko mais boo jàkkaarloog ay baadool ñu bëgg xawi sa sutura ah non da ngay jóg jëflante ko ak ñoom kon nañu ko xame noonu leneen li nga xam ne wax nañu ko mooy situation bi nekk ci réew mi ci wàllu njàng bi ci wàllu dund bi ci wàllu euh, lépp loo xam ne aaju na ci dund doomu aadama nit ñi tey jii lañu gën a sonn tey jii la nit ñi gën a dellu ci gobar jaasi pour yéen waa Dakar yi xamul gobar jaasi mooy togg añ tibb ci leer parce que les gens sont fatigués moi je sais que le dialogue du F24 le dialogue du F24 c'est un dialogue qui était destiné à la souffrance des populations mais pas au deal et à tout ce qui est compromission des politiciens professionnels. Levez-vous, ce pays vous appartient. Man Bougan, Tahawai, Bimam, Ben am benn taxawaay lu Sénégal Boule Nangou, Macky Sall wan ñu ne Mom moom moomu Macky Sall moomu réew mi ay maamam moomulu mi Macky Sall Donul, Don, Don, Donul mi dañ ko fal jox ko mi Macky Sall n'a qu'à déguerpir. Macky n'a qu'à sortir du Sénégal par la petite fenêtre parce que c'est plus une petite porte. Restez vigilants, restez debout. Le verdict également de ce, simulacre de procès de demain, il faut que les gens soient encore une fois debout. pour nous faire pas Sénégal képp kuy woote jàmm ñun ñoo la sommes ak li ñu am ci réew mi investir ko ci Sénégal ba pare di wut jàmm ci Sénégal mais ki ñu fal mu war a def jàmm ci réew mi c'est Macky Sall et Bamba Dièye lui a bien rappelé ça de l'autre côté je le félicite d'ailleurs pour dëgg gi nga xam ne il a osé jàkkaarloog moom wax ko Macky Sall na xam ne lu mu ko jaral pour yàq réew mi non ñun jaral na ko jaral nañu ko pour jëflante ko ak moom pour defar réew mi maa ngi leen di sant bu baax jërëjëf